amal na ko moom président Bassirou Diomaye Faye mu ànd ak délégation bu conseil européen bokk na ca ndaje mañ doon waxtaanee foofee ca palais ñoom ñaar ñooñee nag daal di nañuy àddu jëmale nag ci ab déclaration boo xam ne rek dafa jëm ci wàllu partenariat ngir mën a doxal réewum Sénégal beneen bi yéenekaay xëy tey jii àddu jëmale ci Diomaye mi nga xam ne rek jamono ji ma ngay définir nag terme yi nga xam ne rek noonu la bëgg a doxalee partenariat ma ci digganteem ak Union européenne lu jëm ci wàllu réduction yu déficit budgétaire yi na loo xam ne rek di ciy woo nag ay partenaire am nag ngir ñu daal di ciy gunge gouvernement bu Sénégal 24 heures dellu siwaat ak ndaje mi nga xam ne rek président Bassirou Diomaye Faye doon na ko amal kii di Charles Michel di président bu conseil européen moom njiitu réew Sénégal nag ma ngay invité ay partenaire am ngir ñu daal di koy accompagner nag ngir mu daal di doxal programme yi nga xam ne rek daf koo bëgg a fii ci réew Sénégal ci biir yëglekaay bi moom njiitu réew mi ma nga fay xam ne naan suñu bëgg-bëgg nag jamono ji bokk na ci suqaliwaat wàllu koom gi jaarale ko ci ay lancement yu ñeel secteur privé bi wàllu mbay mi yi wàllu càmm geeg napp gi waaye renforcer waat lu jëm ci wàllu infrastructure économique lu ci mel ni chemin de fer bi wàllu électrification télécommunication yi réseau routier yi bépp investiture européenne boo xam ne rek say entreprise nag mën nañoo am compétence doxal yële secteur nag ñu ngi lay wax bien bienvenue mën nañoo lëkkaloo daal di boole suñuy doole ngir ak coopération sénégalo-européenne Vox lii dellu soit tey ji nag ci coow li nga xam ne rek mi ngi ne combay jamono ji mu jëm ci wàllu motion de censure bi mu jàppee yi nga xew ca yoot pouvoir bi opposition bi naka noonu askanu Sénégal Assane Samb di ab taskatu xibaar ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi nag ne situation guerre bu doy waar lañ nar a nekk ci diggante opposition beeg état bu Sénégal ndax loolee nga xam ne rek moo di motion de censure bi nag amul kenn koo xam ne rek am na ci avantage yéenekaay bi dellu soit ci motion de censure yi nga xam ne rek Sénégal mës na ko dund dalee ko ci Senghor ak Dia Yewwi Amadou Ba ba jaaree ko ci PDS ak Abdoul Mbaye mu di ñetti motion de censure yi nga xam ne rek ba moom la ñu fi daal di dégg enquête yëglekaay daal koy feelu jëm ci motion de censure boobee ñu bëgg a taxawal ca pencu ndaw réew ma yéenekaay bi ne arme la wala xaru ci wàllu politique lu mu ci mënti doon motion de censure boobee nga xam ne rek groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar bëgg na koo taxawal ngir daaneel gouvernement bu Ousmane Sonko risque yu bëree ngi ci Théodore Montey di xam xamle ci biir yëglekaay bi ne cohabitation bu nar a metti moom lañ nar a gis ci assemblée nationale a dellu lu ñu mel daal di xamle ne jamono ji nag waa Benno Bokk Yaakaar nag li ñu ci kaw Ousmane Sonko waaye ci biir yëglekaay bi nag ña ngay leeral ne bés bu loolee amee nag moom président Bassirou Diomaye Faye nag mën naa tabaat Ousmane Sonko def ko muy élimaanu ma moom leader bu Pastef nag yéenekaay bi xam ne nii daal am na ñetti weer ngir mu daal di amal déclaration politique général te su boobaa nag mën naa xaar ba ñu tas assemblée nationale bés bi le jour na fi mu toll nii nag pouvoir bi ma ngay jàkkaarloog bennoo ci assemblée nationale ab terrain boo xam ne rek lépp ndëgg sërëx la opposition bi jamono ji nag dañoo yeew nag état bu Sénégal ñoom ñoo war a jënd glace ngir mën a moytandiku boobee motion de censure ngir ay blocage waaye ma ngay woo député yu Benno Bokk Yaakaar ngir ñu bañ a ëppal ndax majorité bi ñu doon lu ko mooy mën nañoo tas assemblée nationale te su boobaa dañuy ñàkk lépp addu jëmale ak yëglekaay bi di Sud Quotidien dellu siwaat na tey ji nag ci rupture bi nga xam ne rek gouvernement bi bëgg na koo amal ci wàllu affaire publique yeeg chantier yu mag yi nga xam ne rek président Bassirou Diomaye Faye am na ko yéenekaay bi ne ab doxalin bu yees nag moom lañ nar a indi ci réew Sénégal faylu ko ne jamono ji nag am na ay financement yoo xam ne rek war nañ koo amal ci ay domaines yu bëree bëri Washington jamono ji nag débloqué na lu toll ci deux cent soixante milliards jëmale ko ci réewu Sénégal mu nekk investissement yu njëkk yi nga xam ne rek amal nañ ko ginnaaw bi ñu fi taxawalee après jum bi yees mu nekk ay koppar yoo xam ne rek daañu ko dugal ci wàllum énergie ak wàllu wér-gu-yaram waaye tamit nag daañ ci renforcer nag lu jëm ci wàllu secteur agro daal di dimbali nag ñi nga xam ne ñoo yor entreprise yu ndaw ndawaan yi nag le temps mooy ne rek moom lañ doon amal ci secteur jëm ci wàllu ndox mi ci coût bu toll ci quatre cent cinquante neuf milliards nag xaatim nañu ko ak benn investisseur saoudien ay fan laata moo génn réew mi moom président Macky Sall nag yéenekaay bi ne fi mu toll ne jëwriñ ji fas yéene na koo càmbar jeexale koog libération nag ma ngay dellu siwaat ci xeex bi nga xam ne rek moom la njiitu réew mi xamle woon nag ne dina jëmalee ci ñi nga xam ne rek ñoom la ñu dippee ay délinquance fiscale yéenekaay bi ne jamono ji nag arrestation yi mi ngi tàmbalee wàcc nag Mamadou Ba mi nga xam ne rek moo di gérant FS Oil ak Daouda Gaye